naka la defee tam xaritam naka la ko passé bombu ci rebe togu be yooyu budé mi ngi togu dinañu ko wax dinañ ci xam dara top lu ko léegi. bonsoir madame bonsoir. Ça, c'est mon fils. Bonsoir, vous allez bien c'est mon petit chéri. C'est mon petit enfant. Il est tout beau. Tu vas ça et tu dis bonjour. Ma belle-fille. Ah, d'accord. Bonsoir, madame, vous allez bien Ça va bien, merci. Madame, le tanu leen dal ndax seen tablette yi. voilà comment je prophète bañ bomb yeeg yooyu. Euh, man duma ci sax fait parce que beurre duma ci déjà la sauce c'est gras mhm. bëgg dafa beurre vraiment bi rek ma ma fa bi jël alors je je me euh, bi sax mélanger parce que y a y a des gens qui n'aiment pas quand c'est trop lourd alors dañ koy def jël sauce def ko ci les gens se servent à volonté ici ci couscous bi mhm. raisin sec ak haricot blanc bi rek laa ciy def bu ma ko ci defee damay def nii jaxase haricot blanc bi ak raisin sec bi mhm. léegi boo ko mélanger mu jaxasoo ma servir ci assiette bi fële on va mettre la viande et là on va mettre la sauce voilà donc ku bëgg les gens se servent à volonté ku bëgg a def jaga ku bëgg def lekk sans jaga nga lekk sans jaga parce que boo ci jaxasee déjà parce que dañu gis ne léegi société bi dañuy faral di bomb def ba mu saf daal lu ne la ñuy def mais yow daal. di nga préféré man dina saf sax soos bi moom saf na. Mhm. wala tëjal soos bi balaa muy sedd en attendant ñuy defar bii. léegi damay damay jël euh, haricot blanc bi mhm. jaxase ko ak raisin bi raisin sec bi mhm. def ci euh, plat bi wala kaay teel ma ma def ci plat bi. am plat bi Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je ne suis pas très moderne côté cuisine. Je vais vous dire. En fait, j'ai une cuisinière avec qui je suis depuis 33 ans en Donc, je vais vous dire. léegi dañuy da donc ni ma la ko waxee rek ñu ko defee nii Adja mi ngi teg table bu ko defee ñenn ñi bëgg a lekk toog table lekk ñu toog table lekk xam nga boo ko defee ci man kaa toog bokk bi noonu sax peut-être dàqal yàgg na maase c'est plus pratique nga ma teg comme ça gañ yooyu comme waa waa dëkk ba lañu mhm. sama doom bu góor bi moo moom jabaram ak ay doomam la mhm. moom nee na mu bëggul doomam yi grandir en France

ñoom nag laay defal xam nga dañu xaw a soq tuuti. moo mm-hmm. leen bëgg boole ci nit ñi day xaw a compliqué. Ah. léegi après euh, bu ñu ñu ñu soog a tibb nag ndawal defal leen fii tibb soos defal leen fii ñu dem table. mais soos bi da nga koy boole jaga bi wala jaga bi da nga koy def à part. da nga koy def à part nii nii c'est à part. dafay mm-hmm. mettre un peu de sauce. bi yow ban nga préféré viande bi wala da nga jënd sa yàpp def ko wàll. dama jënd si xam nga viande hachée bi boo dañuy jël pour mu sakkan dañuy jël graisse yu bari def ko ci. damay nooy moom laay def jaga du am benn gramme alors que boo jëndee jaga bi kii. viande hachée bi c'est gras j'aime pas même bu may def bu leen bi ma bëgg dama bëgg def. li ma jënd euh, kii man daal viande haché maa koy defal sama bopp yaa ngi yaa ngi machine yi tout c'est facile mhm. Mhm. alors que boo ko jëndee euh, ci euh, kii yi gis nga jaxasewuma yëpp parce que lii yëpp kenn du ko lekk tey donc dinañ te léegi ay yàqale dafa xaw a xew yi léegi kon yow yàqale woo daal njëkkee yéeg déedéet man dama ku nekk jox naa la li ma war a léegi laa jëlee suñu kër sama tante bi ma yàgg boo ko sama yaay ndey ak baay laa jëlee léegi li ma ko war a jox parce que dèjà moom ji euh, belle fille am yëpp dañ koy andil ay yëf nga xam nu mu koy def soo ko joxee nag di nga ko jox dëkkaale yeeg ñi ci des yëpp dina mën a jël dimbali leen ci am kii mu jox dix mille kii mu jox vingt moo xam nu mu koy defee mais noonu la koy euh, moi je préfère ça vraiment ku nekk bu dee sama militant aussi ma man mm-hmm. ma xam nu may def ak ñoom rek ku nekk di nga xam nooy def

dañuy taxaw fële rek servir def fii mhm. après ñu def sauce bi fii waaw xam nga ah. seen yëf nag dafa yéex moom am na man togg rek laa daan def mais léegi rek mhm. mon calendrier un peu chargé j'ai une cuisinière qui est rompue à la tâche 33 ans ñu nekk macha allah lu ma bëgg rek xam na ko top plat bu mu nekk il suffit rek que je moom na nga ko jox xaalis rek bourgeoise la nag Dado <laughs> day bëgg defar day bëgg di nga kontaan rek mm-hmm. day defar ba mu baax xam na liggéey dafa xam sama gën dafa naka jekk sama bu ma voyagé sama jëkkër ma naan sa kër gi yow rek yaa ko mën a téye parce que bintu doo ko jox mu mu def lépp ci cin benn mu ji mu mu prévoir dix donc dafa dafa diriyante voilà mm-hmm. dans sa recette togg bu muy togg daal day bëgg a defar ba mu baax te day defar ba mu baax waaw léegi ndaw bi rek kon daal seet nañ ni du du ci du ci politique beeg du ci xëccoo beeg kii bi du daal du foofu rek ngeen mënee mën a ngeen ci waañ bi naan sax léegi toggatoo léegi na am kii bi ma kii bi fi ñu koy tuddee waaw na ko andi fi ñu koy sax léegi toggatoo waaye chaque fois daal dernière mai bi moo foog nga def ko ci. Ah man maay maay ñam dernière touche bi maa koy def. Mhm. maay sédd parce que dama jaboo ma am sama ay ñees am sama ay neveu ñuy jàngi soo bàyyee ñu séddale dañ koy def léeg-léeg ñu bañ leen a tibbal ak te loolu du ma ko bëgg moo tax man je veille au grain maay séddale toujours mooy moo tax dañuy fara euh, xaw a naajee ak yenn saa yi wala ñu naaj yi guddee reer. parce que sa calendrier parce que man dama bëgg dama bëgg di séddale. carottes la les carottes de l'émergence hein tout à fait tout à fait Bah, wax naa ko sonn xaaral. waaw mais dama ko soxla nag dafa am lu ma denc dama ko soxla du lekk cere. du lekk si cere waaw. wala yow woo ko balaa muy dem うん

Sakira mu ñëw jàppale. mais bàyyi ko mu yóbbu ko moom mu jàng seen jàng. déedéet na dafa mel ni sa jëkkër ju ndaw ji daal ñoom nga yekkal nii daal. ñoom laa yekkal keneen leen ñoom dañoo jafe gérer kenn mënu leen a gérer. Zaki, ta yi jin daga biyu. Muito. Da ma tagta da kabrin ni yau fin da nan nan da na kuma wannan. Mun san da yau ban na fa ko mun. Après na ko bien le poisson hier. Da c'est. Ti chéri. Je les ai un peu ségrégés, là, pour mieux les canaliser. Voilà, ça c'est mon fils. Il vit en France, il y a ses enfants qu'il a ramenés à la maison, sa, euh, son épouse. Voilà, j'ai trois petits chéris. Ah, machin. Je n'ai pas de co-épouse, je n'ai que des chéris, voilà. <laughs> heureusement pour vous alors. Voilà, heureusement pour moi. voilà. Aïcha, Diaga Bangan, voilà, la sauce est là. oh pardon, il faut vous débarrasser de ça. Voilà. Euh, Allez, bon appétit, madame Merci

j'ai le comportement du chauffeur qui a fait la sur le Bintou ah, non du mer <laughs>

di ngeen ñëw fii ziyaare ma ci tamxarit ji ñun nii rek lañ koy defar defaree très simplement euh, ñii toog fii ñii toog fële ñu ku nekk ak la gën a pratical ci yow seen sama doom góor dafa ñëw ak ay doomam ak jabaram donc euh, ñoom laa tegal fële ñun ñu toj fii alors euh, comme bu ñu tooyalee yëpp te am na ñeneen ñuy ñëwaat su à l'heure

et aussi de, la viande bien sûr du poulet mais surtout de beaucoup de légumes euh, ne pas mettre trop de, gras parce que il faut faire attention quand j'étais un peu plus jeune je ne faisais pas attention mais les damay je les régime voilà